salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu xam naa ne dañuy tuub di jéggulu yëkk kàddu yi yi nga xam ne ñoo ngi koy yëkkati rek kàddu yi cantaat rek la ginnaaw sëñ bi ku tedd ki sant na ku tedd ki ba pare dañuy yëkkatiwaat suñuy kàddu ci lu tuuti rek li jëm ci li nga xam ne mooy daayira fédération yi nga xam ne comme ça moo lëkkale lii ba commencé woon ba jëm ca sëñ ba ba sëñ bi jox ñu bis bi ñaari kàddu rek ñu ngi leen di sant bépp jëw boo xay ne maanaam yaa ngi dugg ci bokkoon nga ci daayira bi ak ci bokk bokkagut ak ñu gudd ñëpp ñoo ngi woo ñëpp di sant ñëpp di leen wax ne lii aw sas la woo xay ne nañ góorluwaat bu baax te takkuwaat te xam ne lii kat yombut kon bu nu ko ku tedd ki joxee nañ santaat suñu borom gërëmaat suñu borom tabaraka wa taala te xam ne nag góorgóorluwaat laxasaat ndig yi nañu takkuwaat te laxasuwaat ci ndigg yi parce que liggéeyal Sëriñ Tuubaa yomb na yombut yomb gi mooy il faut nga boole ko fulla ak fayda ak pas-pas jafe gi mooy boo néewalee sa bopp doo dem kon ñoo ngi sant di gërëm di leen gërëm yéen ñëpp nag yéen daay fédération yëpp ñoo leen di gërëm di gërëm waa Pàkku Lambaay yëpp ñu kenn di daayira gërëm waa marché poisson ak ñi nga xam ne ñoo wër ak ñi nga xam ne comme daayira ji nga xam ne comme ñoo nekk fii ci marché bi te nekk fee ci suñu kanam mooy ñoom euh, nekk ci marché bi ñoom daal ñoo ngi sant suñu borom xam naa ne kàddu gi dañ ciy lottu lool sax dañ ciy lottu lool mais ñoo ngi santaat bu baax a baax di leen wax nañ leen góor góorgóorluwaat te takkuwaat te xam ne liggéeyal sëñ Tuubaa rek moo fi ne jërë ngeen jëf ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu li ci gudd li ci gàtt nag ñoo li ci def nag ñun suñu ñàkk rek la ñoo ngi koy tuub bu baax a baax a baax dañoo lottu rek dañoo lott dañoo am mbégte dañoo am mbégte ak kontaante ci bis bi dañoo mbégte lool parce que wax dëgg yàlla kawe na suñu njort kawe na suñu njort lool waaye sëñ Tuubaa moo mel noonu waaye yal nañ Sëriñ Tuubaa taxawu ba lépp luñ ci bëgg rek yéene ko ci mébét ko ci yal nañ Sëriñ Tuubaa dimbali bañ mën ko àggale foofu ci barke Cheikh Mat Bamba Xaadimu Rasuul maa ngi tuub ci jéglu gàtt kàddu yi bu baax a baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu